asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñuy topp ci biir réew mi ak ci bitim réew na nga leen nuyu bu baax a baax te di leen ziar di leen nuyoo fii ci kër Serigne Cheikh Jëmm Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall waaye di leen nuyu tey jii nag ci bis bu njëkk bi nga xamante ne bii xam ngeen ne mooy weeru koor di weeru tedd yi nga xamante ne bii maam Cheikh Ibrahima Fall moo ci amoon ndigal ci ku tedd ki eh, Serigne Touba Cheikhul Khadim ngir togg ay ndogu eh, tàmbalee kon ci njaarim waaye sa borom dogal mu togg ko ba jóge fi njabootam gi la ko tàmbalee Cheikh Moustapha Fall ba ci Cheikh Abdou Sakor mbooleem rek njaboot bi yëpp itam kenn ku ci nekk wéyal ndigal loolu ba àgg tey ci Serigne Cheikh Jëmm Fall mi nga xam ne mooy xalifam maam Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridine ñi ngi ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér Rai di ñaan sunu borom tabara wa taala ñaan sunu borom tabara wa taala mu euh, mu sàmmal nu ko baax baax ba yéeneem ak pas-pasam ci liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall euh, maamam lépp mu yeggale ko xam ngeen ne ni ñu ko waxee nag ren mu tombeek nag xam ngeen ne li nga xam ni moo yëngal àdduna bépp te muy feebar bi ñuy wax corona te wër àdduna waaye ñu di ko dégg fii ci sunu réew muy réewum Sénégal waaye di ko dégg itam fii ci sunu gox yi li ko dalee euh, fii nga xamante ne bii mooy Touba ñu nekk di ko fi dégg di ko dégg Ndakaaru di ko dégg fépp rek ci Sénégal waaye tamit xam ngeen ne loolu tax sëriñ bi joxe woon ndigal ngir nu wéy ndigal li nga xamante ne bi Cheikh Mouhamadou Mountakha euh, joxe na ko te mooy ndajaloo yi ak euh, lu mel ne yenn garam place yi wala yenn euh, mbooloo yi nga xamante ne bi saa su nekk xam ngeen ne ñu ngi faral di daje te wax nañ ne day bokk ci li koy gën a yaatal waaye li ko gën a yokk moo taxoon sëriñ bi joxe woon ndigal xam ngeen ne noonu lañ jëfandikoo ndigal li ndax fii boo ñëwee tey li fi daa teew ci mbooloo ñoo gis fi lii tey dañ ne première kumte la dana la jaaxal lool waaye nga xam ne rek ndigal lool lañ jëfandikoo waaye kenn ku ci nekk itam ni ñu wax saa su nekk mooy raxas say loxo ba mu set waaye takk sa maska yor sa sel saa su nekk di man di raxas di ñu say loxo loolu lépp muy ndigal loo xam ne jëfandikoo nañ ko loolu rek lañ ne woon tey ji dinañ leen ko toppal si fii ko seen seex jëmm waaye sëriñ bi itam waxoon ne mbooleem rakk kenn ku ci nekk dana la jox la nga daa togg nga toggal ko sa kër boobu moo noppee nga yabal ñaar ba ñett ñu indi ko nga xam ne jëfandikoo nañ ko xam ngeen ne mbooleem rakk yi ak nga xam ne ñoo am mbane fii kër gi kenn ku ci nekk la nga daa togg lañ nga ko indi sa kër nga di ko togg ba nga noppee nga yabal ñaar jàpp ñett ñu yenn ko indi ñu ngi nii ko teg ci bi moom itam lu mat daanaka du ëpp fukki nit ñoo koy yóbbu séddale ko njaboot Serigne Touba Cheikhul Khadim kon ni ñu ko daan defee at mu jot loolu mooy li nga xamante ni bii rek moom lañ leen ni moom mooy kàddu bii sëñ ci Massa nekk sant ngir rek ñu xam li eh, nga xam ne noonu la programme ndog yi doxee ren di wax ne daal ci ren ci 2020 bi fii ci kër sëñ Cheikh Jëmm Fall daal li nga xamante bii mooy ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha santaane ci dekk bu sel bi di Touba Mbàkke itam Baye Fall yëpp ànd non rek ko tàmbali ko kër Sëñ Cheikh Jëm ngir jëfandikoo loolu waaye Touba tam lako ko ci péncum palen muy njabootu mam Cheikh ibrahim Fall ga ko fay togge ñoo itam ñu ngi defandiko ndigal loolu kon dal ndigal li kenn jitu ci njabootu mam Cheikh ibrahim Fall loolu lañ fas da nañ fexe dal ba li Sëñ Touba bëgg nañ ko def muy nañ togg ndag yi nako ko Touba sant won mam Cheikh ibrahim Fall da nañ jëfandiko itam ndigal li ngir and ak set gi ak sel gi ba pare mbolo mi baña dajé inshallah ba liñ bëgg lepp ñu am ko yalla ñu ci dajé taw xam ñi ñaan yalla bu wër wi balaa weer wi sori yàlla na lépp dem ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall mu feebar bépp ba kenn dootu ko déggati ci barke Serigne Touba Cheikhul Khadim kon nu ànd ak cameraman leen liggéey bi fu Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibrahima Fall ku sopp daa bay maam sëy na ko jaay baabul mulk lambamba te mooy turuy Cheikh Ibra Fall ci baatin la booboo ti mooy ki fob sa baatin te mooy donoy Seydina Aliou jàmbaar Islam ko ngeen jëf mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci kër Serigne Cheikh Jëm Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall euh, tey nag euh, di bis bu njëkk ci euh, koor gi xam ngeen ne niñ ko baaxoo defee at mu jot muy ndigal li nga xamante ni bàyyi ko woon na ca maam Cheikh Ibrahima Fall Eh, tabb ci mbollem njabotam gannaaw bi ko Serigne Touba santé muy ndog yi nga xamanteni bi serigne Omar dina ci dik ak ñun moom lañ togal ni tay fi ci keur Serigne Cheikh Jëmb mu yor kàddoom eh, bi ndike Serigne bi boole mom ngir mu yëkëtil ñu ay kaddu ci liggéey bi xam nga na ren soppiku na soppiku gi nak mom moy la ran dem mom inshallah mo moo fas dem waye comme dañu tollu ci jamono jo xamni dafa am lu yëngu ci aduna si dañ koy woyé fièvre bu ñu wax coronavirus da nga xamanteni bi wërna aduna na ba wax ne tàbb ci réewum Sénégal mi ba ñu diko dégg ci sunu gox yi yëpp moo tax ñu fas ne nag jëfandikoo ndigal li nga xamante ne bi moom la ñu sëriñ bi sant te mooy képp koo xamante ne bi yaa ngi ñëw nga ànd ak say jumtukaay jumtukaay yi mooy lu mel ne masque lu mel ne euh, raxasu ba set te loolu moom daf ñu cee fekkoon ndax saa su nekk xam ngeen ne njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall la maam Cheikh Ibrahima Fall tegoon tànkam saa su ne Cheikh Ibrahima mag ñi wax nañ ne ca Ndar daana ti seet mbedd moo xam ne mbalit sax a fay ne mu jël ay temps am moo ay taalibeem leen ko ba mu set. nga xam ne set setal bokk na ñu ko njëkk a def kon Cheikh Ibra Fall moom saa su ne ci lu set la doon dox waaye loolu di ndigal lu ñu dabaat ñu fas yéene ko nag daal di koy jëfee moo waral sax ni nga gis ne jamono ji kër gi mel nga xam ne mbooloo bëriwuñ ngir rek fas yéene jëfandikoo ndigal loolu waaye fas yéene nag li ñu sëñ Tuubaa sant muy ndog yi moom ñu togg ko ba mat te waxoon naa ko ci appel yi weesu ne leen moom lu jamono xat-xat nu mën a mel ndog yi tey jii ndab yi nii mu xam ne ñii moom li xew ci àdduna bi wax lépp lépp yëngu na xam nañ ko waaye nag teewul ndigal li moom ñu ngi koy jëfandikoo saa su nekk kon xam naa dañuy daal rek jox euh, sëy Seydina Omar su ko defee mun euh, indi ñu ay ay ay kàddu ci leeral yi waaw. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonenteem bu tedd ma di jaajëfal Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasuul di jaaraamaal Cheikh Rahim Fall Babul Mouridine di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na sa borom guddal fanam te wéral ko ba yéene gi maam ngir liggéeyal sëñ Touba ak sëriñ Bassirou Mbacke sama borom defal ko ba defal ko lu kay njortam ak njabootu sëñ Touba ñëpp di ñaanal nag sëriñ Cheikh Fall jëmb mii borom kër gi yàlla guddal fanam te wéral ko te defal ko jàmm ba yéene gi maam ngir liggéeyal Cheikh Mouhamadou Moustapha faal ak Cheikh Ibrahima Fall mii maamam sama borom defal ko ba defal ko lu kay njortam ak njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp sëriñ Mamour Ndaw ñoo ngi lay siyaare ak di di leen nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax. mbokk télévision Lamfal FM gépp jërë ngeen jëfati lii ngeen def tey jii du guléet déedéet du guléet at mu ne wax dëgg yàlla nii ngeen koy ñëwee di ko def si waaye dafa di ren rek dafa am loo xam dafa tàbbi ci biir réew mi tàbbi ci àdduna gépp muy tawat bi nga xamee ni mooy tawat bi xew ci jamono te nga xamee ni balaa la boo xamee ni yàllaa ko wàcce euh, ba tax na tey fekk nga kër gi yaraax lool waaye ndigal mom tiabi la bu uppe du ubbi bu manki du ubbi sëriñ bi ci bopam jox euh, jot ndigalu Cheikh mohammed muntaha xamal ko ni kat lolé nga liggey bobé nga daan liggey boy bo buñ ci tolo boy bo na ngeen ci wat moy liggey ndog yi ñuy def tay ji serigne bi nak méthode bi mu andi nak moy xol ni ndog yi daanaka lim ci daan recevoir ci ay doom adama tollu na ci presque ay junni junni junni doom adama waye xam nañu dafa melni kon tawat bi ñuy wax dajala ay nit lay bañ jombul ne bu ko ci kenn amé des am ñeneen ño xamé des na leen laalaale te sëriñ bi défar rek lay def yok rek lay def baddi ay xéewal dong lay def sëriñ bi mom ndariñ ko ànd ak benn lor la ba tax na sëriñ bi wo ay rakki bopam wo ay doomi bopam wo seex yi waxtaan ak ñom ne leen ren liggéey bi kat dañ koy soppi nañ koy soppé nak moy ñaar fukki ci yi nga xamé ne amna ci kër gi nga xamé ñett ci biir kër gi la des euh, juroom ñaar fukk fukk ak juroom ñaar yi des nga xamé ne mo ngi ci loxoy rak moo ngi ci loxoy doom yi moo ngi ci loxoy seex yi kenn ku ci nekk nag da ngay toog sa kër la la fi lañ la fi daan jox lépp mu fekk la sa biir kër kon loolee boo ko seetee ci tubaab mooy ay ndogu des décentralisé la dañ koo séddale ngir bañ rek mbooloo mi daje fi noonu la sëriñ bi doxalee ci biir loolu it sëriñ bi xamal leen ne boo leen ko toggee ba mu ñor bu ñoree ba noppi boo leen koy andi it ne benn nit ñëw wala ñaari nit sëñ bi exigé ñun ñun ñu ne ci biir kër gi kenn ku ci nekk na nga takk ay masque xañ na da boleh mënta bolé wax ak tak masque waaye suma ma ci li dañuy tak masque ndax prévention la fagandiku la té lolé wax dëgg yalla autorité yi nek ci biir dëkk bi sant nañ leen ci gërëm nañ leen ci ndax kenn ku ci nek yabal nga sa ndaw mu ñëw fi jot nañ ñu téléphone waxtaan ak ñun ba nu xol ndax ñun ak ñom ñoo bok ndax sëriñ bu fi lé diine ñom ñu nekkal fi nguur té nit yu diine ak nitu nguur dañuy lamiso fu ñu kon lamiso nag ñom ba nu xamal ñi li nga xamé ni mënta ñàkkit ñu fassé nako def ngir ndigalu ndax ab Baay Faal kenn ku ci nekk xam na lii dundal róom mooy liggéeyal sëñ Tubaa fii ak ñoo ngi liggéeyal sëriñ bi nag tiituñu jàqunu dara méttiwunu waaye bu ñu liggéeyalul sëriñ bi am lu gàllankoor liggéey ba ñu liggéeyal sëñ bi tiit nanu jàq nanu lépp ak ñuy metti waaye fii ak ñoo ngi ci ndogu sëñ Bàmba yi dara méttiwunu ñoo ngi fas yéene nag ren niñ ko bëgg a doxalee euh, méthode bu bees tàq lañu ñu gis nga kër gi na mu demee koo fi gis yor na masque koo fi gisit distance yi ñuy wax ñoo ngi koy respecté même bu ñu yóbbu ndog yi li ko daan yóbbu ci ab ful presque mot na juróomi téeméeri nit waaye ren dañoo jël uh, ay mbàkke Touba duy ko ci uh, jël ñaari nit ñetti nit yóbbu ko sëñ bi fu mu ñu jëm loo rek ñu jëm fa loolu yëpp pour daw mbooloo mi liggéey bi ñuy liggéey nag amul lu mu àttanul sëñ Mamour ndax liggéey bi ñuy liggéey nga xamee ne bu noppee fii ci kër sëñ Touba la jëm daf bu la jal bu la day ñoddi day bëmax te li ñu ak te xam ko ak doylo borom keur gi ak batidam ak doylo waajuram wu tedd woowee di Cheikh Modou Moussa Fall ak doylo Cheikh Ibrahima Fall xam nañ ni ndog yi ñuy togal sëñ Bamba su yàlla dogale ñu tok ko nañ ko daan togge fas li ñu bëgg waxuma rew mi aduna gep bala bi mëna fe jóg ndax day leen rek moy tax yàlla teggi aw bala ñaan ak toroxlu ak liggeel yàlla ñett yoy fu mu ande rek yàlla yermandem dana tàbbi xolal ndog yi ñuy tok nga xamé fuñ ko toggé bu ñoree ñay togg xorom sax duñ ko ci mos ngir warmaal ka ñuy jox ñam wa loole war ma jooju rek yàlla mën nañu ci ruus balaa bi ñuy tudd ci réew mi mu borom jële ko fi balaa bi ñu tudd ci àdduna bi sama borom jëlee ko ci am nañ ci yaakaar bu baax sëñ Mamour bu amee tey yeneen laaj mu laaj ma. waaw waaw xanaa xanaa laaj laaj rek sëñ Omar ba xam ndax kumte yi ni muy ñëwee ndax gis nañ ne sëriñ bi njaboot gi ak taalibe yëpp dañ daan dajaloo fi di indi ay kumte Euh, gis nañu dem ba tey dégg nañ ne ñu bëri ñu ngi ñëw dafay mel ne loolu itam dajaloo mbooloo mi xëy na soppiku na ci tuddee taalibe yi pas-pas ba ñu amoon ba tey ñu koy am. waaw comme tey na muy ñëwee sëñ Mamour barki Dembo Ndiaye euh, sa xalifa yabale na fi andi fa njiit li muy sëñ Assane Ndaw ak ñamu doon àndal mooy ñi yàlla defal tawféex bi ñuy tëj mu fekk leen ci biir dëkk bii kon ñooñee dañoo xool ci ñoom ñee ku mag ñu yabal la jox la àddiyee ji ngàndi ko ñi nga xamee ne danoo sore ba mënuñoo ñëw ñii seeni ndaw jaarale nañ ko ci Orange Money ñii seen yëf jaarale nañ ko ci war Wari ñii seen yëf jaarale nañ ko ci ndaw yi yu mel noonu kasaali ko noonu seex si nga xamee ne nag ñoom it seen liggéey dadaañ ñëw mu ànd ak ay xarak yam daan àndal yëpp dafa mel ni nag liggéey tey ji ñaran àndi ñoo ngi àndi pas-pas bi yokku na jaayante nañu te xam na ni sëriñ bi kat seen jëf dong lay xaar ngir mu mën ko yóbbul sëñ Bamba jiiroo nag waxoon naa ko keroog jiiroo nag moom ku yéex bokkuloo lima gis nak jiro la ndax jamono bu yengo reung reung am len dong lañu mëna sukkandiko a sukkandikoo toroxlu ci yalla, leggeel yalla, jaamu yalla ngir sama borom mëna teggi lool yalla amana kenn deful ko len lo xamé ni kat waras ni ci mëna joggi jall waye dañuy fexé xol ay bëgg bëggum ñu jëm ci joggi te xam nañu Cheikh Ibra Fall lu mu defal seigne Touba seigne Touba dana ko nangu te seigne Touba loko jox yalla dana ko nangu yoonte bi dana ko nangu fofu dong lañ ko aj te lañ ko yaakaar kon nak ñoo serigne bi mo ngi wat rakki bopami mo ngi wat doomi bopami moo ngi waat les bon volontés yi nga xamee ne amaana Cheikh Ibra Fall du seen sëriñ ci sayir waaye Cheikh Ibra Fall dane man Ibra Fall de la ma yor ci nagu ndénkaan su ma ko yowee gëtti raaf am na ñooñ ajuñu ci kër gi ay mbàkki mbàkki lañ waaye saa yu ñu santee Cheikh Ibra Fall liggéey ñoom danañ jaayante daanu xëccu andi seenub liggéey andil ko ci sëriñ bi ngir xam ne Cheikh Ibra Fall kat moo dimbali ñëpp Cheikh Ibra Fall bu dul woon moom dara duñ jar ñu wëlërante wëlëre googeeg sëriñ bi te ñu xam ne Cheikh Ibra Fall nee na fooy li ci àdduna wax man Ibra Fall maa koy fay nee fu waay liggéeyee ci àdduna liggéey wooyu yàlla war la cee fay dara man Ibra Fall man la sama borom doxaleeg loolu kon nag wet googu sëñ Mamour sëriñ bee ciy sant moo ngi ciy gërëm moo ngi sant dongo yi ndax dajale mbooloo metti na ñëpp añ ñu bari aju ci yow metti na waaye nag li ci gën a neex sëriñ bi mooy li nga xamee ni moom euh, digle na ko mooy euh, distance bi digle na ko mooy wàllu cet gi loolu fekkoon na ci Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall moo gënoon civilisé moo ñi mu jamonoon teel ñëpp kenn gënu ko cee civilisé li taxoon tubaab bi gis ko bëgg ko mooy civilisation ak na mu yaree woon ay waa këram ndax nit ku ordel la woon la wax nañ ne bu ma saan génne mboo ndar mbooloo mu bari bi topp ko lu mbooloo mi bari bari bari kenn du ne sa morom toppal sama kanam euh, ni ñuy salonee mooy ki gën a gàtt day jiitu ñu toppante toppante ba gën a njool nga xamee bu ñu àndee di dox kenn ku ne dana gis sa kanam te du ne sa morom toppal loolu man jamono la wax nga ko léegi set bi ñuy wax set moom saa yuñ ci wootee rek ñun Baye faal yi ñoo ci war a jiitu ndax Cheikh Ibra Fall ba muy set setal di ko def ci mbedd ndar yi bu noppee def ko àddee sëñ Bamba boobu lii xewagul. te daanaka wax ne ndab lu toq yàlla du ci def ñoom. déedéet ndab lu toq sax ah, bala nga koo jaam boo yoroon tur yàlla di ko liggéey sax am na fan bala koo yegg yàlla da lay fóot ba ruugi set la mu koy war a maralee mu doog koo maralee ak moom ndax bu xasee def ci yow leer def ci yow baax dootoo soxla mbon ndax baax daa neex am na loon ku ko mësul xamoo ko waaye lii ñu nekk nii daal ñoo ngi ñaanal sëñ Mountakha sama borom bàyyi ko fi te yàggal ko fi gën naa dëgëral nag pas-pasu Baye Fall ndax suñu xol sedd na gën naa dëgëral suñu pas-pas waaye la ñuy dimbalee sëriñ bi rek mooy or li nga xamee ne mooy ndigal li mooy distance yi mooy masque yi mooy lii nga xame ne nañ koy jëfandikoo muy euh, gel beeg kotol ak saabu ordinaire bi ku ko am mënta am daal set daal lañ bëgg rek ah, ak mi soo ko bari gi ñu bay ko ndax xam ni wasalaamaaleykum wa rahmatullah doy na waaleykum salaam wa rahmatullah weccay sant dong la waaye ñu bañ a laamisoo di joxantey loxo ndax mur tàmm na ko waaye nañ ko dañu ko jéggal ba beneen jamono ndax jamono moo ko laaj ñoo ngi sant ñooy sëñ Mamour ba maatee yeneen euh, sant nañ sant nañ baax kay xanaa di wax ne rek kon waxal mbooloo mi ne nii la fas yéene continuer rek incha allah nii nag xam nga tey sax dafay kumte te xam nga ni yow kumte li fi daan daje ci doomu aadama daanaka ëpp na junni nit waaye nii nga xamee ne sëriñ bi décidé na ko tax mu demee nii xam nañu sax bu ñu jàllee kumte gi jëf yi dana ñëw liggéey bi dana ñëw waaye mbooloo mi day gën a yaraax ndax loolu rek la sëriñ bi bëgg te ni ko sëñ Muntaxa bëggee noonu la ko sëriñ bu bëggee ndax sëñ Muntaxa daa am taalibe bu ko noppal muy sëñ Seex jëmb fu mu déggee ndigalam dana ko def te du ci te te ni ko sëriñ bu bëggee noonu dong la koy defee jaa ngeen jëf sëñ Maamour jaa ngeen jëf ndaw